gars yi ñu ngi lay nuyu di leen ziar yéen ñuy suivre en sport ñu war a ñëwoon ci benn vidéo wax ci euh, euh, euh, Nicolas Jackson bi nga xam ne tey doon football neuvième journée Premier League tey nag Nicolas Jackson départ ci maximum mais deuxième daal dugg ci soixante-six mille yi mais bu duggee xale bi waane boom ba mujj na am li nga xam ne mooy note cinq ci xale bo xam ne départul nga ñëw amna na su nekk loolu euh, performance bu baaxa baax la daan ñëw ci taxaway xale bi gën ci wax mais laata lolu dañuy wax yeen ñi gën ci bi départ di remote Sport ngeen abonné ngeen commentaire ngeen xaar ñu ci yeen vidéo ak yeneen numéro ak yeen jangat ngeen ni aimé di commentaire di partage ay lien ngeen ñi san ay cœur lolu moo ñu gën a mën a dooleel ba ñu mën état li nga xam moy suñu objectif xale bi nga xam moy mooy Nicolas Jackson Dey tey de maxi bu reul def fa la nga xam moy mooy Premier League ba malgré faire de départul waye maxi ba de 2-2 la manam de kër ñom 2 sen adversaire am 2 muy 2-2 xale bi nag départ ci max waaye bi mu ñëwee deuxième bi-temps waaye na engagement ak détermination comme ni nga xamee woon nekk laa ci dribbler ci passe ci secteur offensivement ba ci défensivement mu nekk benn jour boo xam ne franchement conforme na ci moom ñëpp la jaaxal mais guddi yi nag day côté bi da kaa préféré ba deuxième bi-temps loolu nag xam nañoo jaaxal ñun ñëpp dañuy duteloo euh, baxam coach bi dafa dafa bëgg jël Soa bañ a boole ki nga xam ne mooy Nicolas Jackson ci os départ yi wala guddi yi dafay nekk koo xam ne dafay xaw a noppal xale bi yooyu nag dañ ca xam dara fii ñetti euh, journée ñeenti journée ca kanam kanam mais xale bi nga xam ne mooy Nicolas Jackson loo ci mën a dégg guddi mu ngi ci forme boo xam ne forme bu exceptionnelle la ñun ñëpp nañ ko ñaan moom Nicolas Jackson mu continuer bu baax ci dynamique xam ne ci la nekk moom Nicolas Jackson